mais même bu loolu amee parce que xam naa ne loolu joué na ci décision Macky Sall xam naa it ni Macky Sall du avant muy reporter élection bi wax na ci ak euh, Karim Wade wax na ci ak Ousmane Sonko. ah bon jàpp na ah oui bien sûr jàpp na ni peut-être aussi que comme Karim Wade ak Ousmane Sonko ñooy représenté ñaari pôle assemblée nationale yi nga xam ne ñoo fa ëpp doole. xëy na peut-être jàpp na ni an ci analyse politique ñii rek doy na pour mu reporter élection bi. waaye bi mu reporté élection bi xam na ni loolu doyul. mais Yérim uh-huh. hmm. bi mu leen consulter dañ ko jox un avis favorable ou défavorable. loolu moom mënuma ko wax leen daal xam naa ko li ma leer ba leer moom te muy information yu ma recoupé mooy bala muy dàq élection bi wax na ci ak Karim Wade wax na ci ak Ousmane Sonko loolu leer na. waaye même bu fekkee ni Karim Wade ak Ousmane Sonko sax ñooy représenté groupe parlementaire yi ëpp doole ci assemblée nationale du Sénégal loolu sax ne veut pas dire que boo ko reporté doo indi coow la preuve wax naa ak ñoom ba pare waaye bi mu ko reporté coow li indi tulleeg màlle bref li ma wax ci interview bi ci journalu tubaab boobu laa gëm maanaam dialogue bu fekkee ni yow danga ngaa da laa lenn reporté moo moo gën ci réew bi da ngay dialogue ak nit ñi wax ak ñi nga ko seqal ba jubóog ñoom soo a reporté mais xëy suba ñëpp di commencé seen campagne électorale ñii préparé seeni oto ñii di carburé seeni oto ñii di yóbbu seeni affiche nga ni reporté nga élection bi te consulté woo kenn je pense que loolu loolu moo indi coow li voilà loolu mooy point bu njëkk bi waaw.